la fois passée ñoo organisé fii ay ndogu mais Jib suñ grand bu grand bu baax la ñun ay jeunes lañ dañoo am dañoo am activité saa dañoo jug pour dimbale suñu quartier dimbale suñu quartier en avance anti sec Jib Terre Rapide lépp lu ñuy def en avance ak moom bàyyi ñu dara lépp lu ñuy def rek da def kii mooy suñu président d' organisation. ak Jib Terre ça benn ngi nii rek bu muy def day ñëw suñu wax ñu nañ jeune lii ak lii laay teg heure bi teg dara ci koñ bi dañuy woo du mos a dara te bàyyiwuñu. lépp li muy def rek dañ koy wax accord bi ñuy jël lu ñu mënta jël rek moom moom mooy nekk en première ñu soog def li ñuy def. waa ñu ngi gis suñu boppam ci lépp ak nekk nañ si koñ bi bu ñu rombee nañu am ñëpp jàmm ñëpp si koñ bi lépp li muy def day jiital mañi soog ñoo woo ñun xale yi lépp li ñuy def tey mouvement bi nii rek woo bëgg démb mu ne avec lépp teg naa ko seen loxo bu rafetee yéen la bu ñaawee yéen la ça veut dire yëg nañu am na passion si ñun bu ko neex dama woo yeneen booy mais dafa ko ñu ne ba suñu xam ñun ay jeune lañ ëllëg tam bi bu dara di am jeune ngay njëkk a indi ça moom tam bëgg na nekk dara maire bu mu nekk yàlla ko yàlla ko yàlla fal te bëgg nañ mu nekk ko ci koñ bi bu a nekk si ginnaaw lépp lu ñu ut so moromi seen yëpp muy Pikine Nord Pikine mooy nit da nga am fulla ak fayda sa bopp xam yaay kan ndax boo nekkee ndaw dafa am yoon yoon yoon boo xam ne dañ ciy tegu te moo nekkee da nga war a bàyyi yu bari te boo nekkee ndaw tam da ngaa war a ànd ak ay mag yu la ëpp expérience comme genre Jupiter yi ñu lay teg ci axe naa la defal lii ak lii ndax loo lay ndaw boo nekkee ndaw da ngay ñemee tamit ñu lay wax dëgg di la teg ci yoon waaye boo nekkee ndaw topp sa xalaat lépp loo bëgg a def doo dem ci kanam si ginnaaw ngay dem moo nekkee ndaw ndel nekk si ginnaaw mag ñi rek ndax mag lu muy gis xale du ko gis loolu ñu ngi waxee mag dina nekk fi soo di gis liggéey xale nekk fi di gis lii waaw moom yàlla ko fi yàlla bàyyi ñi tam yàlla na fi yàlla bàyyi jàpp nañ ci bis bi teeru nañ bis ñu tam ñu leen di sant di leen gërëm ak club mi ak ak suñu magu koñ bi maire yeeg paa yeeg maire yi ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm li nii yàlla nekk nu koy fekk ay ati ati ati at ba ñëpp ku si nekk mu see gis sa bopp waaw yala nekk loo xamante ne daal lii ñëpp dañ koy teew ay ati at maa ngi di sant di leen gërëm sama waaw mouvement kontaan naa si yéen trop waaw lii nag nice na këram nag na leen koy jàpp suñu grand la ndax moom lañ am ñu moom a représenté duñ jaay yëfu Seydina suñu demee jàppale keneen tamit suñu yëfu la mooy suñu rey mu di jàppale keneen te bàyyi kenn nekk sa loolay waaliyaane boo waaliyaane moom li nga bëgg doo ko am balaa ngaa waaliyaane kay waaliyaane la ku nekk sa dëkk ba pare club bi nga bëgg yal na la ko yàlla defar maire bi ngay wuute yal na la ko may club ci le billaahi wallaahi wa taalaay gis nga sa sa koñ bi li ngay def si koñ bi affaire rafet yi acte yi rafet yëpp yal na la yàlla fay sa xol mission bi nga bëgg de yal na la ko yàlla borom si barke Seydina Mohamed